jërëjëf président euh, sans plus tarder dañuy jox keneen euh, kàddu gi ku ne xam na ni jafe-jafe Pikine du ndaw ñi rek mais ñëpp a ngi ci biir alors ci noonu la ñuy joxe de gi ki nga xam ni il représente les délégués de quartier Mamadou Diop qui va revenir également sur ces problèmes mais surtout préconiser des solutions Mamadou Diop à vous la parole. ñuy ñaan gars euh, ñi nga xam ñoo jël parole ñuy gàttal rek parce que temps bi duñu ko maye ensuite ngeen ñi présenté aller en même temps pour que président xam wax merci monsieur le président bi dina des à jamais parce que lii lu am temps bi du ma permettre ah, Fatima wax na ci lu bari Pikine ci boppam moo soxla assainissement su tawee lépp a parce que tubaab yi defar zone yoo xam cuvette la yenn yi en dôme sorte de dôme yenn yi nekk cuvette loolu moo am problème et que sunu kii yi fi euh, les stations là amuñu moteur yoo xam ne mën na drainer ndox mi na mu waree bi nekk ci Dominique amul doole bi nekk ci station bi ñuy wax cimetière yi fii ci quartier Ndiassane amul doole benn moo fi mooy bi nekk syndicat alors refoulement refoulement yi nga xam ne dafay am ci kii yi daanaka gëx yi li muy gëxi euh, canalisation yi muy gëxi si la rue Hyacinthe Thiandoum loolu dafa metti lool day feesal quartier yi ba mu fees dell ak ndox mu bon kër yi ñu wane léegi si sa si quartier boobu yooyu yëpp refoulement la dëgg la amoon nañu benn cuvette amoon nañu benn genre de bassin de rétention boo xam ne roseaux yi ñoo ko constitué woon mais léegi maison de la jeunesse jël na ko ndox yi ñëw yëpp si waa quartier Ndiassane lay ñëw alors ma bëggoon nañu trouver une solution jox ko ñi nga xam ne dañoo xereñ ci mbir mi nous étudions ñu fofu parce que nous mu maison de la jeunesse à na à 3 à 4 mètres ñenti mètres ci kaw nek ci souf té Nous ndox ma ngi balla di jóge ci souf di obligé nit ñi ñu taxu ñoñu ku ci étage ci de ñi nak ki terrasse ñoñu dem nañu un. solution ah, pour pour les venir en aide daanaka ay mesures yoo xam ne mën na leen permettre ëllëg parce que dañu abandonné seen kër te bi ñuy dem am na élèves am nay lu nekk bon loolu tamit laa doon wax ci li nga xam ne moo nekk ci mbirum euh, quartier Ndiassane boobu nga xam ne ndox mi dafa génn ma ragal mu mën a nekk ba mu mu topp ndoor mu ñëw topp tànk yi Médina Gounass ma bëggoon nag su mën nañu fa def benn bassin de rétention wala loo xam ne aussi mën na permettre eau yi ah am fu koy récupérer su fa amee tam pavage pour yenn yi dina baax et que ONAS aussi dama bëggoon mu def xel ci liggéeyam am na gaa yi jëf kii clandestinement kooku dañ ko war a bàyyi loolu moo ñu gën a affecté daf ñoo lor complètement parce que su refu amee refoulement amuñu clapet ndox yi day ñëw ci kër yi waaw loolu laa doon wax ci affaire li nga xam ne moom mooy kii bi li nga xam ne mooy EDK ba tamit

pour que pour que ñun ñu mëna a ci jamm waaw monsieur le président jërëjëf yooyu laa doon am lu may wax ci mbirum assainissement concernant pikin jërëjëf euh, délégué délégué représentant de délégué Mamadou Diop maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax ci yow itam ni nga baamtuwaat kaddu gi nga xam ne Fatima Dieng waxoon na ko jëmale ko ci mbirum assainissement te aussi posé nga problème bi ci anam yu yu yu baax mooy Pikine bañ koy defar déjà amoon na ay cuvette fi mu nekk boo jëlee les cartes hydrauliques yi nga xam ne vers les années cinquante nga xool superposé ko tey ak Pikine ak dëkkuwaay yi da ngay gis ne li ëpp si kër yi ci ay yoonu ndox la newoon wala ci ay déeg donc loolu mooy problème bi malheureusement tam ah, programme yi ñu waroon def ci at yu bare bare jotuñ ko def kon jël naa note ci wàllu quartier Ndiassane dégg naa li nga ci wax bu baax a baax ak euh, aussi école Kabiru Mbodj ba ci cité Lobat Fall li nga xam ay jafe-jafe la danaa yónnee mission ONAS semaine bi nii ñu ñëw xool euh, jël motukaay yi ñu war a jël balaa nawet bi dugg bu leen fàtte yi ne pikin moom moo ëmboon Kër masaar te lu bare bare ci Kër Massar la gënoon feeñ ak ci yëmbal ba tax daaw ma jëloon benn programme spécial bu takkoo takku ñu def ko Kër masaar yaakaar naa ne tey jii euh, tan am na foofu euh, am na yaakaar ne nawet bi di ñëw moom waa Kër Massar dootu ñu yëg loolu kon dana des toujours fu mel nu pikin fu mel nu Géejawaay fu mel nu Kaffrine léeg-léeg ay gox yoo xam ne ba tey dañu féete suuf te donc ndox mi day daal di euh, law dem dem ci gox yi ci suuf parce que ndox toujours fi gën a suufalee dem loolu mooy euh, nature am kon dinañu defaat mission yónnee fa mission du moins suñu ñëwee ñu mën leen a jël jël seen contact pour xoolaat liggéey niñ koy taxawale incha allah boo ma mënee joxaat sa téléphone nag ma jël ko benn yoon kom ça jox ko waa ONAS Mamadou Voilà, 77. Wow. 322. 322. 06. 06. 66. Parfait. Jërëjëf. 06 70. Kon jallan. 66. Waaw, noté D'accord. Merci. D'accord, merci. Merci, délégué. Merci, délégué.